Papa Diaz maa ngi lay ziar sama waa ji. waaw Boucar mon frère maa ngi lay ziar. si loo maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Diaz namu naa la de. waaw fii la ëppee fii la ëppee. da am benn programme bu ñu war a def fii euh, si terrain Gasel. waaw. national bi fii euh, benn ñu nag waa association euh, Atlantique bu Pikine. Hmm. waaw ñu teg mise bu bëri. waaw yàlla def na nag ñu dagg suñu licence su lutte am nañu lutte avec frappe. waaw ñu ngi ciy invité nag ñëpp. Ah. waaw invité ñëpp. am na date. waaw am na date le 28 ak le 29. 28 ak le 29. waaw ñaata ngeen teg. waaw teg nañu daal ay millions yu bëri. ay millions yu bëree bëree bëri. waaw teg nañu ah. simple bi teg nañu ay xar. waaw waaw. wan ne lii daal raxul dara politique. ok waaw dañoo ñëw pour boole boo yi bëree. waaw waaw loolu la. mais loolu du yomb de Diaz. waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu waa Pikine waa Lutte TV yëpp. mais loolu xanaa dina ci ànd ak Lutte TV kon incha allah non jaar day a koy yéen seen liggéey la. incha allah Lutte TV sama Lutte TV la. mais sa sa journée yi nga doon programme foo si tollu lutte avec frappe bi wala da nga ko stand by. non dama dama dama dama bàyyi. waaw ah, ba weer bi dee. waaw comme ah, dafa am ay événement yu mag yoo xamante ne tey daa amoon Pikine. waaw. tey mënu ko boole di tëgg làmb dëgg la yàlla def na benn bi dem na mu des benn bi waaw muy Boy Niang teg ak Modou mhm. ñu koy ñaanal suñu borom defal ko ndam mhm. mu sedd guy loolu la woon rek loolu moo ma tënkoon du dara mais noonu leen ko combat boobu waaw ñu ngi koy waaj rek di wax waa Pikine yëpp nañ jóg combat boobu du yomb de waaw waaw waaw combat boobu du yomb de Diaz <laughs> ñoo ëpp doole ñoo mën nga ne ëpp gën a féete xale nga ne yéen ëpp doole ñoo ëpp doole ñoo mën yéen ëpp doole Modou Lo non dama ne la ñoo ah. ëpp doole ñoo mën ñoo gën a féete xale. yéen a mën Modou Lo. te booy ñaa ku am gëm-gëm la. waaw ku gëm yàlla la maa ngi lancé appel bii nag na Pikine waa yëpp génn. fépp fu ñu mën a takk banderole ñu takkal fa booy ñaa. parce ñu rakk la. tey utuñu ndamu booy ñaa mais ndamu Pikine lañuy lañuy ut quoi. saxal dal na ci moom. non bu baax a baax a baax sama xel mosul ñàkk dal ci sama rakk yi. waaw. maa ngi lay bëggee. fii la ëppee. di la naan kon rendez-vous le 28. waaw di ñaanal suma rakk ji tey indi ma ah. fii muy saa bokkal saa bokkal waaw suñu borom may ko ndam lu sedd guy tey wax dëgg yàlla tey bu ma jógee ba ñëw mm. tey moom moomu fi indi may may félicité ñaari promoteurs yi dëgg la muy Abdou Salam waaw ak Goro Ndoy dëgg la ak bi yëpp dëgg la maa ngi lay bëggee waaw jaajëf la ëppee kookoy Pape Sarr suma waa ji yàlla na sa jàmm yàgg ay ca Mohamed Mohamed Arafat mu ngi ñëw ci plateau bi nee naa tey loolu du mën a yomb Ada Ndakaaru mais Ada maa ngi lay bëggee. mais si la ne. mais Ada doo wàññi bayre bi coow li est-ce que doo wàññi affaire bagage yi gaañ coow Ada foo Ada tourné yaa ma gën a xam Ada Ada Ada ah si loolu lépp tawfeex yaa ngi am jàmm. aca teel teel maayeg bi ah daa am looy defar ay <laughs> ca noonu la demee Mahamed Ada Fass a ngi noonu si diggi géew bi wala mu ngi noonu ci plateau xam naa gars yi nam nañ ko nag ci biir géew waaye ak lu mu ne xew mu ngi waajal ay ca noonu la deme ay ca waa Tampico waa King ay ca kenn du yéen Ada Ndakaaru maa ngi lay bëggee Ada gëj naa laa gis ñoo ngi leen ndokkale si bés bi di ñaanal tu tànk bi yàlla na dund ngeen toog ba fekkee njëriñam amiin amiin tey nag xam naa sa doom day moo moo la andi tey si si bés bi leer nañ kay muy Njaga Faas mu mel ni yéen a waajanoo bés bi waaw Njaga mooy loolu Njaga jàmbaar la xale la bëgg na làmb bëgg na ko daal sa xel dal na si moom contact la quoi moom li contact instant contact amagul combat li contact la si moom. Tapha Tine numéro 2 lay bëreel de. waay bàyyi nga seetaan di a ah. daan ay champion si mbapat. lan la war a bëree. waaw bàyyi ba mu xeex mu mu bëree. non ah. la demee Bokar. demoon nga fi INSEP su visité demaat wala da toog. Ah, yaa ngi waajal guy gi. waaj guy gi bu guy gi guy gi loo war a liggéey xeex doole technique rapidité lan nga war a liggéey pour guy lépp incha allah lépp yàlla moo ñu dem si kaw mbër bu mag nga jël de aada amul problème mbëru gox amul problème borom canaba amul problème borom sempi yi amul problème bu jàppee du de amul <laughs> looy wax ñi lay bëggee waaw di bëggee ñëpp mhm. képp kuy bëggee Ada Fass ak di nekk maa lay bëggee mhm. diaspora beeg fépp mhm. barke sëñ parce que am na ñoo xamante ne aussi yow rek la ñuy dat bi ñu dat incha allah ñu bëri leneen te amaana lamb rek. léegi mhm. daan na ay champion. man bëri naa ay champion. Mhm. leneen kon bokk lu mu mën a jaaxal quoi mënu maa jaaxal si dara. te loolu ma ñëw jour ba wane sama bopp loolu Ada Fass guy gi arbitre siffle gën sama diggante ak moom. Mhm. ma wane sama bopp. mbër bu am expérience la ci lamb de. allah rabi déggoo ma de Bokar yaa ngi fi toog. bis ba waaw loolu arbitre siffle gën suñu diggante. nga gis beneen Ada quoi xam ne xale bi màgg na xale bi instant yii dafa màgg quoi. supporters yi acca wala wala ñu seetaanandoo combat bi. waaw waaw dem diggante Ndiaga eh xeex Ndiaga daw na jël ko plaqué Ndiaga daan na Tapha Tine vite fait bien fait. eh Ada Fass na. Ndiaga daan na jël ba rëy na vite fait bien fait. Ndiaga Fass. daan na Tapha Tine 2 Ada na. cey bi maa lay bëgg doom yaay bëgg naa la Bakar fi la fee merci dama laa mere waaw bu ma mere nag sama waa nga parce que mënu ma fee njëkk Ada Fass waaw nga koy jël non c'est que sa waay jëli woon waaw moo tax dama ko doon bañ a xàlloo xam nga rek xam nga yow sama xarit dama laa bëgg yow ñoo far yow sama waay nga dama laa bëgg ndax Bamba Thiam ak yow ne bëggoon maa jël ma ne ko dama si Babacar laa jëm yow sama waay nga yow ñoo far bëgg yow ñoo far waaw loolu dafa leer mais xam nga sa comme dama yónnee woon ñu jëli ko dëgg la moo tax rek loolu loolu noonu la demee waaw ndeysaan tey loo fi indi mais si loo ne waaw yàlla rek Adama Diouf doo jël avance am daan na sa doom day kookal Adama Diouf kuy Adama Diouf daan na Alaaji Mbaye mi sa doom day pare naa barke Serigne Fallou ah. mu tëgg ko kon pare naa quoi. na la tëgg yow dugal si combat le premier sa pare kii bi. le 13 bi le 13 bi le 14 waaw le 14 la le 14 bi. fils de Balla la waaw. kon loolu day ala de. non barke Serigne Fallou parce waa ginnaaw raa yëpp instant pare nañ. Hmm. surtout ma mbëbës dëkkee jamono ji ay ta bay doomu nday Kara Alaaji Mbay jamono ji ñoo bokk fu ñu ne. muy sama doomu de di sama xarit ma yeewoo këram. gis naa muy état yi nag di di liggéey lu métti. barki alxuraanu karim lu ñuy liggéey mbër bu ko liggéey gaañu. Ah. barki alxuraanu karim ah, Babacar gis naa ko si dini da xaw ma day sóob nag xaw ma de xaw ma day nag xaw ma day nag ay supporteram. bon barki sëñ Fallou. mu ngi liggéey. moo ngi liggéey lu métti. Ah. man damay ragal mbër bu ko naroo jëlaat fi am problème. mais Babacar rek sax xam ni combat bi dama see waroon bëri waaw. combat bi laa waroon bëri. journée bi tey journée tey bi dama. lu waral combat bi yàqu. barki Serigne Fallou boo ko xamee nga wax ma ko semaine bu war a jot avance. waaw sula la combat bi yàqu. lu yàqu combat bi ba tey mënu la wax lii moo yàqu combat bi ak entraînement yu métti yu ma nekkee. du yoon Babacar nangu maa am gel hmm. Babacar nangu maa def dara ndax combat bi ndax lamb. ah barke Serigne Bamba. maa ngi lay bëggee. waa di la siyaar nag di sant sama bu baax a baax. Hmm. di ko ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm amiin mu fekkee njëriñ bi barki démb dañ doon ñaanal suma rakk ji mm-hmm. onze ans su euh, ren ndeysaan suuf di ko ñaanal bépp mboolum jullit bu yàlla sàkk rek te mu génn àdduna maa koy ñaanal suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjana amiin yaa kooku moo doon téye samay billet làmb kon dama koy ñaanal rek yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bépp mboolum jullit bu mu fa ne ak ñoom dem si yàlla si Akon mm-hmm. ñoom Moussa Dioum ñoom Papa Yada xam borom bing bang borom ndar borom ginaaw raay sama waa ji waaye gis ko combat baa ngi noonu diggante ki nga xam ne mooy Ndiaga Fass yaa ngi may dégg tëdu bu yaa ngi may dégg jarul sol boo ma déggul tam nga sol rek acca ca bëgg naa la maa lay malam ñaani waaw waaw ma la ma ne malam ñaani rek lépp benn la rek ah daa mel la de lépp benn la maa ngi lay bëgge maa si loo ne waaye ngi ni rek yaa ngi ci lan man ne maa ngi di xaar combat mënu ma am ba tey da ngaa raar de yàlla ah maa ngi ci chaque jour de ah billaahi yaa ngi entraîné maa ngi entraîné guddeeg bëccëg di yokku cere di doolu ñeex yàlla xam na ko mais man la xew lu tax Sénégal nanguñu maa jël moo tax ma ñëw fii tey lu tax nanguwul barki rasulaay loolu du yoon de gars yi nañ la jël man maa ngi ci 11 combats 11 victoires. 11 combats 11 ba tey jii mënu maa bëri. waaw du yoon. du yoon de. barke Rasulullah man lam laa am. dëgg doomi mbër. waaw si appel rek promoteur yi. waaw promoteur nan ma ñëw nan ma ñëw jël promoteur bi promoteur mbëri ñoo ragal mbëri Sénégal ñoo ragal. si mbëri la daal. barke Rasulullah ci ban danger moo ci yow ba di ragal. man damaa xam sax. ah. xam ñoom bëgguñu daanaan ñoom da daaneel ñu daanaat wala ñu daan la ñoom kooku lan soxla soxla mais kuy bëri daan du mu la jël bëgguñ la jël waaw loolu du loolu du yoon nag maa ngi lay parce li ñu war lépp ñu koy def amal jaamu yow Jackson na ñëw ñu